ci walu xex sibiru bi Sénégal amna ay djego yu bari mën wax sànq ne li état di def ci walu xex sibiru mën ne ñetti at yi di ñew état jàpp na def ci soixante milliards de francs CFA soit 20 milliards at mu nek pour xex sibiru fi ci Sénégal ba tax donc djego yuñ ci jot def tay ji bo lu melni euh, ganaru senegal Sénégal ak du jëm ci région de Thiès ni junni bo gis ay djuroom ñoo faral di am sibiru généralement bo demee lu melni tambakunda Touba euh, Kolda Kédougou boo jëlee euh, téeméeri nit dina am junni nit dina am au moins juróom fukk ñu ko xam ne ñoo koy faral di am boo ñëwee li mel ni zone Thiès ñoom dafa bokk ci euh, zone bi nga xam ne presque mun nañ ne léegi ñu jeexal sibiru ci ci ci ci ci gox bi nekk nii loolu nag li ko waral mooy jumtuwaay yu bare bare yu ñu yore te bi ci njëkk mooy sànke pour mucc ci sibiru sànke la ñuy jëfandikoo sànke yi am na lu ñooy sëkk-sëkk loo xam ne état bi def na ko suñu dispositif ba nga xam ne fu nit nekk ci Sénégal mun ngaa am sànke mais beneen bi mooy ku ci sa yaram tàng ci hivernage bi ñu nekk da ngaa war a teel a jege euh, structure de santé yi ñu mën a teel a saytu pour mën a am ñu ci faatu euh, jot nañ fee indi ñetti téeméeri euh, juróomi téeméeri sanke pour mun ko distribuer fii ci sali ñax-ñaxal pour jàppale ko ñi nga xam ne ñoo fi nekk mais di fàttali né fo dem ci district yi dina am ay sanké yu fa nek ba nit ñi buñ ko soxlaa mën nañ ko am gratuitement parce que état bi moko mettre à la disposition de la population. Euh, man la euh, Néné Seydi euh, en tant qu'actrice de développement au niveau de du département de Mbour. li waral activité bi nak moy que ni machallah allah ñun man dama yor benn mouvement au niveau de Saly di liggéey en partenariat ak benn mouvement bo xamné national la ñuy and nawlé parce que tey ku ñëw ba sama gox fii tey euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr Euh, ànd ak euh, docteur Doudou Sène ñu ñëw xeex si biiru fii au niveau de sali lool macha allah man dama ciy kontaan trop muy doon honneur ci man parce que tey képp ku fi toog ñu yëkkati moustiquaire jox la ko rek day mel ni tey euh, pro protégé wu ñu benn nit protégé wu ñaari nit mais famille yëpp lañ protégé. tey moom dinañ maye 500 moustiquaire tey moom foog naa dëkk bi yëpp tey ñi ñëw toog ñëpp tey bëgg nañ képp kuy dem muy muy góor muy jigéen ñu jox la benn moustiquaire pour nga yóbbaale ko sa kër aar sa parce que mouvement bi waaw day def ay financement jigéen ñi tey jigéen ñi ñëpp ngeen gis fii tey ñoom ñëpp dama leen a jàppale ci ay financement tey maa ngi def ay don de sang di def tamit ay euh, dépistage ngi lancé appel au président de la république pour mu ñëw jàppale ñu président dama li may xaar ci moom mooy euh, na ma seet si samp ma ci sama gox jox ma ay ndombal tànk ma am doole liggéey suqali gox bi taxa Camara maay coordonnateur mouvement ànd nawle ngir falaat président Macky Sall 2019 loolu suñu mouvement tudd mmh. yàlla dogal mu bokk ci mouvement bi ñun ñooy fondateur yi moom am na mouvement am fii di def ay finance financement ci affaire développement mhm. ñu ànd ci di liggéey liggéey bu sell bu ñu ñëwee pour def lii ñu ànd ak ku mel ni docteur Doudou Sène mu ñuy jàppale ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ñi ciy soxla nag ndimbalu président de la république parce que ay ndaw lañu du liggéey kii jigéen la def na ba dooleem jeex ñun def nañ ba def luñ munul mais kenn dimbaliwuñu kenn jàppalewuñ ñi président de la république ñun la ñuy waxat moom lañ soxla parce que ay ndaw lañ di jaay suñu life ci moom ngir moom ci anam bu nekk nag a ñorul ma lu président de la mais nit ku nekk soo koy taxawee fenn daf la war a jàppale président ñi muy jàppale gënuñ ñi gënuñu sonn ci parti bi